muy wax lijaasaam mi ñu ngi tolloon ci lijaasa bi nga xam ne yax wi la nettali léegi bi nga xam ne nii Seydi Mouhamadul Kabir doomi Seyid Ahmed doomi Maham dégg nga moo ko ko joxoon mu ne wa nasu ijaasati yaxu lijaasaam bi moo nekk nii radiyallahu anhu الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد أجزت أخانا الفاضل العلامة الواصل من جمع بين علمي الشريعة والحقيقة خريط الطريقة في كل ما صدر من الشيخ تجاني من الأذكار اللازمة وغير اللازمة من غناو بمسنتي الله yàlla rekk yàlla dong wax daw julli ci bi suñ sang Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa ak ñooñam aali baytam ak sahabaam mu ne gannaaw loolu jox naa lijaasa suñ mbokk bu gën bi foode bi xamaakoon bi ki àgg ci yàlla ki nga xam ne dafa boole ñaari xeeti xam-xam yi mooy xam-xamu sharia ba mat sëkk ak xam-xamu xaqiqa ba mat sëkk dégg nga mu na ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu mu ne baay mooy mbooti tariqa bi mooy wéeruwaayu tariqa bi Mawlana Cheikh Ibrahim xaritu tariqa bi sadara min Cheikh Tidiane jox naa ko ndigal ci lépp loo xam ne gongeeku na jugee ci Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu <clears throat> ci mboolem sikkar yëpp yu laazimi ak yu du laazim iznan taamman aamman xaasan kama ajaazani sayidi algaali bun muusa bun maazuuz an abihi an cheikhina Tijaani radiallahu anhu wa ardaahum an abihim mu ne jox naa ko ndigal lu mat sëkk ndigal lu yaatu lu bay lu am ak li nga ndigal kem li nga xamee ne noonu la ma di jaaseeloon sama sang alxaali seydi xaali doomi Moussa doomi Mansour <coughs> alhamdulilah kooku tam mi ngi jëlee li jaasaam annabi jëlee ko ci baayam kooku ngi jëlee an cheikhina atijaani radiallahu anhu wa an adaam kooku ñu jëlee ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane kooku ñu jëlee ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallaahu anhu yal na yàlla gërëm leen gërëm ñu amin <coughs> qaala innahu ajaazahu abuhu wa mawlaaya Muhammad bun Abi an-Nasr mu ne kooku baayam jox na ko lijaaza ak mawlaaya Muhammad sangam Muhammad bu doomi Abi Nasr والثالث نسبته أنا وأظنه عبد الوهاب بن الأحمر كل واحد أجازه عند موتي من نيتال كي من ماكو أسكن maa ngi yaakaar ne di njort ne Abdul doomi Laxmar la doomi Laxmar la ñoom ñëpp ku mu ci ñoom jox nga ko li lijaaza kenn ku ne ci ñoom jox nga ko lijaaza ñu demoo bi muy dee اي تحويل ها اي تحويل مو toxal وكما أجازني شيخي أحمد بن بدي عن أبي عن الشيخ محمد الحافظ عن الشيخ تجاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجازى هو السيد المذكور أوله إبراهيم بن عارف الكامل شيخ الواصل الحاج السيدي عبد الله النياس لا زال يترقى في حضرة القدس وزنته an ya'zana man kaana ahlan lima zukir mu ne ki nga xam ne nag danga comme niñ ko joxe woon lijaasa Cheikh Ahmed mu jël bon doomi badi jëlee ci baayam jëlee ci Cheikh Mahamadul Hafiz jëlee ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jëlee mu jëlee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yontu yàlla moom mu jëlee ci yontu bi sallallahu alayhi mu jox lijaasa bi nag mooy sang bi mooy tudd ci njëlbeeni wax ji lijaasa bi mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu Ibrahim doomi aarif billah doomi ki xam yàlla ki alkaamil ku mat ki Cheikh alwaasal sëriñ bu àgg bi alaaji Seydi Abdoulaye Niass yal yàlla def muy gën a yokk ci xadratul qudsi yàlla moom dañ di yéeg di def tarqiya jihaadatul qudsi mu ne jox naa ko ndigal moom Cheikh Ibrahima Niass mu jox ndigal képp ku yelloo li ma wax nii yëpp mu nga ko jox wa kataboo aajilan wa mujizan محمد الكبير بن أحمد بن محمد بن عباس العلوي بن عباس العلوي التجاني كان الله لهم بمنه آمين في 22 ذي القعدة سنة 1445 هجري mu ne lijaasa bii nag ki ko bind joxe ci ndigal joxe ci lijaasa mooy Muhammadul Kabir doomi Ahmad doomi Maham doomi Abbas alaluwi bi ko jóg Tijaan di Tijaan yàlla na yàlla nekk di xiiw ak xéewal ñeel leen amin lijaasa bi moo ko bind ci ñaar fan ak ñaar ci weeru Zulqeeda atam junne ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonte bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ngi way di wax radiallahu anhu ñes ci kaashifu l albaas mu ne wa waqaa al iznu al mutlaq lil abdi al faqir aydan عن الخليفة الأكبر والعلم الأشهر والكبريت الأحمر والبدر المنير الأزهر الشيخ الأعز محمد سعيد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ عن والده سيدي أحمد عن شيخه بدي عن جدي شيخ محمد الحافظ عن الختم التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا بهم آمين باي من تابنا نيهل ما أمنا ndigal lijaasa mutlaq boo xam ne mi ngi jógee ci jaamu yàlla bi soxlawoo jëm ci yàlla tamit di xalifa bu mag di drapeau bu siiw ci xam-xam ak njub di kéemtaani jamono di mercure rouge di weer wu leer wi dégg nga di koo xam ne nii tontóor la dégg nga leer guy tàkk la di sëriñ bu weex bu set bi dégg nga wax bi ñu di ko Mouhamed Sayid doomu Cheikh Ahmed doomu Cheikh Mouhamed Hafiz jóge jëlee ko ci baayam Sayidi Ahmed ah, jëlee ko ci sëriñam Baddi jëlee ko ci maamam Cheikh Mouhamed Hafiz kooku jëlee ci Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane رضي الله عنهم وارضاهم عن نبينا محمد الله يلا كرم لي نيم يب كرم ني امين يا رب باي من ونس اجازتي يا خول اجازام بي ميغي ني من ني لبند الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وبعد فيسلم الكاتب فيسلم الكاتب على حبيبي وخليلي السيد الاديب السيد الاديب الاريب الشيخ من حاج شيخ من شيخ الحاج عبد الله ابراهيم لا زلنا وياه في عون fi amnul karim mu ne maa ngi sant yàlla doo alhamdulilahi rabbil alamin julli ci yonent bi sallallahu alayhi sangi ñu ñu yónni ñu gannaaw loolu maa ngi nuyu dégg nga aji bind ji muy man mii di bind maa ngi nuyu sama soppe sama xarit sang bu yaru bi bu muus bu xelu bi eh, Cheikh Hadj Ibrahim doomi Hadj Abdoulaye e ibrahim yalna bum dañ ñoog moom nekk ci ndimbalul yàlla mu tabi mu tedd mi mu ne fa mi ne waajibu suwaalu an xaalikum wa xaali yaalikum mu ne bokk na ci li war mooy laaj la sa xaal sa mbir noo def mbaa yaa ngi ci jàmm yow ak sa xaalu njaboot yëpp wa xaalu kullu man معكم من التجانين أكهالوي وحالو من معكم من التجانين أكهالاب ينكا يوج تجاني جعل الله إياكم من خاصتي خاصتي منهم يلن يالا دف دفلين نبوك تي قاسي قاسي تجاني كالي بشامة تجاني ريلانو ومن الموجب أني أطلقت لكم الإذن في طريقة شيخنا ووصلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني أخذا وإيطان من بكنا جلي ورال li war mu ne mu ne ko waaw mu ne li waral leetar bi nag mooy bind ak mbind mi mooy ne jox naa la lijaasa al jox naa leen ko yéen Cheikh Ibrahima Niass ci tariqa suñ sëriñ suñ wasiila jëm ci yàlla suñ jokkuwaay mu moolaana cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu jox ak ak may jokkale jokkalante mbóot fal amatu lil amati wal xaasatu lil xaasati mu ne aami ñeel lu aam ñeel na aami lu xaas ñeel na xaas yi وهذا سر السر لأني أحببت أن أكون من سلسلتك كي أحظى بدعوتك وأحببت أن تكون بيني وبينك خاصية ويحب أن تكون من جهة الآخرة لأن الدنيا أصغر عندنا من المكاتبة لكم من نك لي ما يدف مبود لا كمبود نحن ما بغ بكو تيني أمس سلسلة يو شيخ إبراهيم مانندال ما أم تيتر دنگ أم سنيان جاخل الجازة بينجير بلال ندمو لورو ألك يوم القيامة سنتشي الله من بغناتم كولري xusuusiya nekk sama diggante yow te li ma ko bëggee itam mooy ci àllaaxira laa ko bëgg ndax àdduna bi tuuti na lool ci ñun pour ñuy bindanteeg yow ci loolu mu ne wa allimakum bi cheyin arju min allahi an yajalakum min ahlihi wa huwa ilamukum bi anni min asgari awlaadi walidi فحين خلفني عليهم صرت لهم تلميذا وولدا فحين فعلت ذلك صاروا هم لي أولادا وتلامذة wala taltafitu ila qawli nnaasi wastainu billah fa kullu ma amakum jazaakum anna wa anil muslimina xayran mu ne maa ngi lay wax benn mbir te maa ngi lay xamal loolu di yaakaar nga yelloo ko mooy ne maa lay xamal ne man maa gën a tuuti ci sama doomi bàyyi waaye bi ma uutalee ci ñoom ma mujj nekk seen taalibe nekk seen baay mu ne bi ma defee loolu ñoom ñu mujj nekk di samay doom nekk samay taalib mu ne bul geesu na jëm ci waxi nit ñi da nga dimbali ko yàlla ci lépp lu la soxal la itteel ku li ma am ma ko jazakumullahu jazakumullahu jazakumullahu anna anil muslimina xeeran jazakumullahu anna anil muslimina xeeran yàlla la yàlla fay fay jullit ñi fay la ci jullit ñi yiw وكتب أخوكم وكتب وكتب أخوكم محبكم محمد سعيد بن بن أحمد بن محمد الحافظ انتهى من خطه مباشرة ومعه تابعه عام 1949 من بن لينك سمبوك شي يلا سسوبي شي يلا محمد سعيد دوم أحمد دوم محمد الحافظ من جهنا بن منك نكو بند من دم لخوام لدركت نجي عندك تامبو نكو بند أتم جنة نجي تتمر أك ñeent fukk ak juróom-ñeent lii Baay radiyallahu anhu ma ne moo ko bind ci kaasifu delbas Baay mu ne faal qad asaaha wastaqarra biha nawa كما قر عينا بالإياب المسافر أولئك آبائي فجن بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع mu ne fa walaay ko ñoo ñëwee abaaye ñooy sama bàyyi faqata saa la njëkk a wax way mu indi la fii wax sa xar bi yan na waa kem ni nga xamee ne jugee ci tukki aksi ba pare tukkeem ni xolam di seddee boo amee li mu bëgg ñëw ci jàmm dellusi si jàmm mu ne noonu laa mel man bàyyi ku doon tukki jëm fenn ba àgg ba teg xetam daa di wu toog foofu laa toll man Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu am naa sama càkkutéef ulaayka ñooñu lay dee a ah, bàyyi ñooy samay bàyyi fa ji nii bi misrihim yàlla may ma ñu mel ni ñoom soo ñu boolee dégg nga yaa jëlul ma jaamee loolu woy bu jaam bi yàlla woyoon la mu àbb ko indi ko fii nii maanaam daal ñii ma tudd ñooy gaay ñi ñii ma tudd kéemtaani jamono lañ ñii ma tudd doy nañ ñii ma tudd maa ngi ñaan am ñu mel ni ñoom lii sëriñ bi radiyallahu anhu mané موكو وقتي ci الالباس وجزا الله عنا ساداتنا خيرا ورضي عنهم وارضاهم و انتصابنا اليوم حقا وسندنا عن الشيخ خاتم التجاني من غير واسطة إذ هو ولله الحمد xaadirun maana daiman walillahi alhamdu walawul minnatu bàyyi radiallahu anhu ñes radiallahu anhu gannaaw bu bindee lijaasaam yi mu bind ci kaashiful albaas mu ne yàlla na yàlla fay sangu yiw suñ sang si yàlla gërëm leen mu ne nag suñu askan tey dëgg-dëgg ak suñu wéeruwaay ci Cheikh Ahmad Tidiane bi xayru min xayru wasatin la lii ay rijaasa yoo xam ne yàlla defal na ma ko ñu jox ma ko waaye maa ngi laaya biir jàmm yàlla di leen xamal ne sama askan sama wéeruwaay tey ci Cheikh Ahmad Tidiane amul intermédiaire amul wasaatatu kenn doxul sama digganteeg Mawlana Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu ndax lan ngir ne moom cheikh maa ngi sant yàlla ngi teew ànd man cheikh ibrahim daiman walilahi alhamdu walawul minnatu cant ñeel na yàlla xéewal ñeexal na yàlla cheikh tidiane du tàggoo ak man cheikh tidiane du tàggoo ak man lijaasa yi ma am sant naa ci yàlla waaye yàlla may na ma lopp loolu man ak Cheikh Tidiane yi dara doxut sama diggante ak Cheikh radiyallahu anhu loolu bàyyi moo ko wax sante ko yàlla laayee biir jaam yàlla yi bàyyi na yuxkaa anna abal xasan alsaadali suila an cheikhihi fa qaala كنت أنتسب إلى مولاي عبد السلام بن مشيش واليوم أعوم من عشرة أبحر خمسة من الآدميين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخمسة من الروحانيين جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل والروح باي تك ما واخلي مخبا wax li mu wax sëriñ bu mag boobu ñuy wax abal xasan chazali mooy baay xasan dàkkanta la limaamu chazali laaj nañ ko sëriñam mooy kan mu ne nekkoon naa di askanoo jëm ci sama sang moolaaya abdusalaam ibnul mashish abdusalaam doomi mashish waaye tey nag maa ngi feey ci fukki géej juróom yi ay doomi aadama lañ juróom yi ay rawxaani yenk lañ maanaam duñu ay nit daal mbindam rawxaan lañ yore juróom yi nga xam ne ay doomi aadama ma lañ mooy suñ sang Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa ak Babacar Siddiq ak Omar ابن الخطاب اك عثمان بن عفان اك علي بن ابي طالب رضي الله عنه يالا يالا گرم لين من لين جيروبي خمنا اي روحان لين جبريل لا اك ميكائيل اك ازرائيل اك اسرافيل اك روح باينا قلت انا باير بو وخه قلت رك دنا وخ كيمان دنا وخ لو خمنا ني لوي جيرين لا تتم رانك قلت ونحن من بحر واحد لا ساحل له ولا غاية ولا أمد ولا انتهاء yes. وذلك البحر يستمد من بحر لا ساحل له ولا غاية ولا أمد ولا انتهاء ويمده بوسعه وذلك يستمد من حضرة الإطلاق ويمد بوسع ربوبيته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون متكنا أولئك آبائي أولئك آبائي فجئني بمصرهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع متكنا وهذا آخر الكتاب والله الموفق للصواب وإليه سبحانه المرجع والمآب sëriñ bi mu ne ma ne ñun de géej gi ñuy tëbboo benn géej la benn géej kott kott la ñuy tëbboo géej googu nag yaatu na yaatu goo xam ne kawe na kawe goo xam ne amut dayo amut tefes amut jeextaluwaay dégg nga amut lim amut àpp amut jeexuwaay du jeex mukk géej googu ñu ngi tëbboo moom it ci géej goo xam ne amut dayoo amul tefes amul dayoo amul emu waaye dal tooy waaye amul jeexalu waaye du jeex mukk dégg nga moo koy tëbb ci yaatuwaayam ku njëkk gi mooy moolaana cheikh ahmada tijaani radiallahu anhu fa laay tëbboo direct yonent bi sallallahu alayhi wa moo ci topp mooy tëbb cheikh ahmada tijaan direct yonent baa ngi tëbboo fan fa zalika moom géej googu nag mooy géej ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yastamidu min xadratil itlaaq mi ngi tëbboo ci pay xadratil itlaaq ci mu koy tëbb ci yaatoom rububiyaam moom yàlla ñu nag loolu ngëneelu yàlla la ci loolu nag lay nara euh, rawante kuy rawante na nga rawante ci loolu ndeysaan après mu tëj ci nag benn bayti ne ulaayika abaa'i fajini bi mislihim isa jamaatna ya jariru majaami mu ne ñoo ñooy sama baay ñoo ñooy samay gaay ñoo ñooy samay waay yow yàlla boo may boole boole maag ñii da nga may ma ñu mel nii maanaam ñi ñooy sama waay daal ñii ñooy gaaña loolu mooy wax ji mu ne nag lii mooy mujj ak dégg téere bi li kaashiful baas yàlla mooy maye tawfiq yàlla na yàlla may ñu sawaab njub ak dajjale bi tudd tawfiq mu ne ilay jëm na ci moom yàlla delluwaay bi ak saxwaay bi yëpp ci yàlla lay dellu dégg nga lii mooy lenn ci téere bii nga xam ne mooy kaashiful albaas fii la yem tey ñu ngi koy tëj jeexul nag ci maanaam téere bi dafa ànd ak tësiil moo tax bu kaashiful albaas jeexee dafa am lenn lu ci bàyyi tegaat loo xam ne nii mooy feddali ak sant yàlla loolu itam danañ ko continuer ci darsi yi incha allahu taala Cheikh Ibrahima ngi wax ci xaatima bi ne mu ne wa qayadahu iznun hadrati wa qayadahu bi iznin hadrati alkatmiyati wa madadiha al abdu وممدها وقيده بإذن حضرة الكتمية وممدها العبد الفقير إلى رحمة الرحيم ابن الشيخ الحاج عبد الله إبراهيم لا يزال في جمال مولاه يهيم mu ne ki bind lii الباس كي كو سخل Kaashiful Ilbaas ki bindee na ko ci ndigalu peyu xadratul katmiya ak tëbbam muy Mawlana Cheikh dégg nga ki nga xam ne mooy borom peyu katmiya dafa dafa tabbe moom mooy Cheikh Tidiane Laano moo ko ki ko moo ko tëbb jaam bi di jaam bi soxloo jëm ci yàlla jaam bi nga xam ne mi ngi soxla jëm ci yërmande yàlla mi rahim yaa jëram juri daal ci àlaxira doomi Cheikh Alhaaji Abdallahi Ibrahim Ibrahim muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñes yàlla bum dañ di nekk ci yéeguwaay taaru boromam di ci gëlëm bàyyi ne wasawatuhu fi tisaati ayaamin في زمن الجهل وتراكم الظلام وكثرة اشتغال الأنام وجمود العقل وفتور الفكر وخمود الفتنة معتذرا عند ذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب والله والله أسأل أن ينظر بعيني الرضا والصواب شيخ إبراهيم مني تيربي تعرف ناكو بن ناكو شي جرم نينتي فن جمونو جو خمنا جمونو يرير جمونو جو خمنا جمونو لندم ترس يو toggaloo yu tegalante jamono ji dafa lëndëm nit ñi dañoo sàgganee yàlla wa kasratu il anaam wa jumu nit ñaa ngi ittewoo leneen lu dul yàlla dañoo kippe daal ak xel yi dañoo way kalaat yi dañoo sonn da nga da euh, xel yi dañoo da nga euh, fay itte daal jugatut bu baax jamono ji ànd ak loolu yëpp taalif téere bi maa ngi sàkku ngànt man baay Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu ci borom xel yu sell ci gàttañ lu bi ma def ci téere bi loolu daf ko wax ngir suufeel boppam man tawaadaa lillaahi rafaahullah wallah asal maa ngi ñaani yàlla yal na yàlla xool jëm ci téere bi xool jëm ci man yaay ni rida wa sawaab yàlla xool jëm ci bëtu njub bëtu ngërmandeem ak tawfiq lii bàyyi moo ko wax mu daal di ci teg na faayinu rida an kulli aybin kaliratin walakin ay na suxte mu ne bët nag boo xam ne bëtu ngërmande la du gis ayib dafay gumba ci ayib waaye waaye nag bëti ku mer ku añaan ku nanguwut la def kooku moom dafay feeñal ay ñaawteef ala anna man nazara bi ayni rida يعلم على أنه من على أنه من على أنه من نظر بعين رضاه يرى أنه من فيض الختم تجاني صاحب السر ci bëtu eh, ngërmande da nga gis ne eh, téere bii di Kaashiful Ilbaas mi ngi bàyyi ko ci faydu xatmu xatim bi kii Cheikh Ahmad Tijaan radiyallaahu borom mbootu yàlla ko jóg rabbaani lakinahu li kaw زبدة الكتب المؤلفة في هذا الفن من تيربي دفا أمبو دنجا آه، سو دخ مانام تنك دال لغن أم لن تعرف فن بي تصوف تي يالا تي قم يالا تي نيو تيرين تعرف يب تيربي دفا تنك لكي أب وقل أن تجد مجموعا يحتوي على محتوى عليه هذا المجموع bàyyi mu ne néew na nga gis luñ dajale boole ko taalif ko mu mel ni sama taalif bii fa man daqaqa nasara wa ansafa yaalamu yaqinan annahu allafahu cheikhu tijaani bii di takbir allahu akbar ñes bàyyi mu ne képp koo xam ne nii settantal nga xool xool gu ànd ak sell ak sellal ak mandu wallahi ak ci yaqin da nga gis ne شيخ تجاني تي بوبم تي لوخوم مو طالب تيري دي كاشف للباس رضي الله تعالى عن الشيخ ابراهيم وعن الشيخ تجاني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسال الله تعالى متوسلا به وبخاتم انبيائه وبخاتم اوليائه ان ينفعنا وينفع به جميع المسلمين ما نيان يالله سبحانه وتعالى يدف توسل جوكلو كو barkeb xaatamul anbiya muy ki mujj ci yonent mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ki nga xam ne mooy xaatamul awliya di xaatamu wali yàlla yi ñu moo naa Cheikh Yàlla di laal maa ngi ñaan yàlla jëriñ ñu ci téere bi jëriñ ci mbooleem maa ngi ñaan jëriñu jëriñ ci jëriñ ci yàlla jëriñu ci téere bi jëriñ ci mbooleem jullit ñi wa yataqabbaluhu minna bi qabulin hasanin maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko nangu nangu bu rafet bu yiw way baarik fii barakatan azimatan akbar maa ngi ñaan yàlla def barke bu màgg bu màgg a màgg a màgg a mag ci téere bi di kaasifu rabas xataa yu baarika fi kulli man kaana fi xataa yu baarika fi kulli man kaana xalla fii la yàlla na yàlla dem ba barkeel bépp bërëb bu kaasifu rabas wàcc rek yàlla na am barke way baarik bi tariqa wala yàlla na barkeel ci tariqa bi ak ñooñ tariqa bi way na unazimoa fi silkil xatmin fi al karim mu nose ko ci nosoog xatmu bu tedd bi loolu laa dégg nga tedd bi yow ma laa yem fa maalum wala banuuna illaa man atallah bi qalbin saliim qalbin saliim bés boobu nga xam ne xol ju bëri du jëriñ doom yu bëri du jëriñ lu may xol bu sell bu ñuy xel yàlla مودري ما نيان بس بوبو يلا تمن تفتري بي بركيم اك نيختلم فين فوف نصيفو وكان الفراغ من تسويده عشية يوم الجمعة لاثني عشرة بقية من المحرم الحرام عام 1350 في مدينة كولخ والسلام من باينينا ماغي pare ci téere bi eh, ci bind ko taalif ko yooru yooru eh, ajuma ngoonu ajuma ji bësu ajuma mu tolloog fukki fan ñaar moo desoon ci weeru muharram alxaram muñ xaramal bi atum junne ak ñetti témèr ak juróom fukk bi ci kawlax ci medina kawlax wa salam tamma bi hamdulillahi wa husna awnihi kaashiful albaas bàyyi mu ne mat na nag léegi ci ndimbalal yàlla ak xéwénalam kaashiful albas mi lu uñi lënt lënt yi ci fayda tidiane bi wayalihi tazil lu mu alif nag li ci top nak moy ki nga xamne mo talif téré bi li nga xamne ne mbicc yu rafet yi nga xamne mom la ci tek taaralee ko téere bi ah gungee ko téere bi e, dëggalee ko téere bi laaya ci jaam yàlla yi loolu moo topp ci téere bi incha allah mooy dar si xale ñëwaat alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wala